ba mi ngi nii avancel maître avancel avancel tuuti. voilà laal la ñii nañ ñëw nii. xoolal kaa leen nii kaa leen nii. non non. non naa ko grand defal naa ko doucement.

procès bi affaire Ousmane Sonko Mame Mbaye bi ñu indi pour atte ko tey ñun dañ koy jàppe ni genre bal de match lool li ñuy wax bal de match ci football wala dernière chance pour euh, mën éliminer Ousmane Sonko du jeu politique notamment présidentiel bii di ñëw li ñu mën jàpp xam ngeen match football bu jeexee léegi léegi léegi c'est pas indiqué yow mi tàggat joueur wala entraîneur wala président fédération ku mënti doon ngay analyser mënoo analyser à chaud li ñu jàpp mooy suñu pourvoi bi ñu def boo jëloon ay jinne sax dajale leen mënuñu ko dàq parce que dañ ko fondé ci ay violation yu bari lool yu doywaar yi nga xam ni bu nekkul juge sax boo ko expliqué ne ah lii jaarul yoon kon arrêt Mame Mbaye Niang bi du are bu baax te loolu ñëpp ànd nañ ci ba ci procureur général dafa demandé ñu kase ko Euh, souvent dafa am benn expression dañuy wax couper la poire en deux bu ko tubaab bi waxee mooy bu ñu la joxee euh, poire wala pomme nga jël paaka da nga koy dagg ci digg bi ah waaye tey jii ñun li ñu gis poire bi wala pomme bi dagguñu ko ci digg bi dañu dagg morso bu ndaw ak morceau bu mag ñoom morso bu mag bi leen intéressé mooy li ñuy doon jooy muy li ñuy wax euh, contrainte par corps infraction bu mel ni bu ñuy toppee Ousmane Sonko affaire diffamation injure kenn mësul gis ñuy content par corps maanaam bu nit ki ñëwee di laaj xaalisam te mënoo ko fay ñu ne dañ lay tëj nga fay ko ak sa yaram loolu la ñu content par corps loolu la ñu dindi du ci des nag te loolu dañ ko kase mais ñu ne jarul renvoi parce que cour suprême bu kasee dafay renvoyer keneen atte ko beneen cour d'appel comme cour d'appel Dakar la ñu def euh, pourvoi bi ndax moom moo àtte li mu àttee euh, dañu bëggoon suñu casser wala des déjà mu def sursis à statuer parce que dañu demandé woon li ñuy wax exception de d'inconstitutionnalité na ko cour bi jox conseil constitutionnel ñu xool ni euh, Sonko àtte bi ñu ko àttee jaarul yoon defuñu loolu mais nee nañu maanaam li jëm ci xaw ma nu mu koy expliquer content par corps bàyyi nañ ko li ci des nag lépp li des ci arrêt cour d'appel bi ça reste intact dindiwuñ ci dara te ñun ñu ci intéressé mooy effectivement condamnation bi ñu condamné woon Ousmane Sonko à six mois avec sursis ñoom lo ñun lu ñu bëggoon mooy ñu dindi ko attewaat ko pour que général loolu la demandé ñun loolu lañ demandé te ñi fi toogaloon Mame ñaa Niang évidemment duñ ci d'accord mais convaincre ñu kenn ndaxte c'était imparable argument yuy génnee doomu aadama wala jinne sax mënuñ ci dara ah nag ay doomu aadama wan nañu mën nañ ci dara ndax dañu bañ ba lànk bu leen neexee tey ci guddi balaa suba teel ñu jël décision bi tàppe ko yóbbu conseil constitutionnel. kon cela veut dire que décision bi day daal di hypothéquer avenir kii. parce que décision bi elle pour monsieur Ousmane Sonko. ñoom loolu moo la ñu intéressé ñun tam loolu moo ñu intéressé parce que booy xeex dafa am objectif. Mhm. dañ doon gagné lii pour dindi ko pour pour raser ko mu jeex tàkk Ousmane Sonko retrouver la plénitude de ses droits ñoom gisee wuñ ko noonu maintenant may nañ leen loolu li ci des ça ne nous appartient pas. on est dans l'histoire qui vient de commencer léegi mën nañu jàpp ni ku préparé woon ni da ngay am candidat ci élection présidentielle bu tudd Ousmane Sonko mën nga jàpp ni tey jii li cour suprême du Sénégal chambre criminelle li mu àttee wane nañ àndu ci que Sonko liñ ko daan ci euh, cour d'appel confirmé nañ ko te article L30 kon boo ko xoolee tëral na condition yi nga xam ni bu ñu la condamné ci six mois juróom benn weer effectivement yow juróomi at yi ñëw maanaam dañ lay dindi ci liste électorale yi doo mën voté doo doo mën euh, falu jàppe ko noonu le rest nag mu ngi suñu kanam. m'épancher à chaud suite à une décision de justice comme ça. C'est comme si après une rencontre de football, l'entraîneur se permettait de faire des analyses. C'est trop tôt. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est tout simplement constater que, constater que au terme euh, d'une gymnastique plus ou moins périlleuse, la chambre criminelle ah, n'a pas fait droit à notre pouvoir. Elle n'a pas voulu non plus écouter l'excellent réquisitoire de M. le procureur général, commissaire du droit, qui a sollicité avec force argument la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Dakar contre laquelle nous nous sommes pourvus en cassation. Donc euh, le, le, nous également, nous avons plaidé la même chose. Mais comme vous le savez, ça a été précédé par euh, la demande du sursis à statuer, parce qu'on demandait à la Cour suprême de transmettre notre euh, exception d'inconstitutionnalité au Conseil constitutionnel, d'attendre que le Conseil constitutionnel donne sa décision puisqu'elle impacte directement sur la solution du litige entre Mambéignan et Ousmane Sonko. Mais ils nous ont dit qu'ils rejetaient cette exception d'inconstitutionnalité parce qu'elle serait présentée hors délai, ce qui n'est pas vrai. Et ils ont accueilli le seul moyen de la défense tenant à la contrainte par corps en disant effectivement que ce n'est pas légal euh, d'assortir euh, une telle condamnation pour des délits comme l'injure et la diffamation de la contrainte par corps. Ça, c'est par rapport à l'exécution de la décision. Si jamais il venait à l'esprit de la partie civile, de poursuivre le recouvrement de la somme de 200 millions à laquelle a été condamné M. Ousmane Sonko. Il est évident que ce qui les intéressait, parce que la Cour a ajouté qu'elle pouvait à la limite casser cet élément de la décision relatif à la contrainte par corps, mais que ça ne nécessitait pas un renvoi. Par contre, tous les autres points de la condamnation de la Cour d'appel étaient maintenus. notamment l'aspect relatif à la condamnation de monsieur Ousmane Sonko, encore une fois pour injure et pour diffamation. Alors, donc cela veut dire qu'aujourd'hui, euh, euh tout simplement que dans leur esprit, les adversaires de Ousmane Sonko ont peut-être gagné la première manche ou ont gagné la, la guerre. Parce que de toute façon, ce procès se définissait pour eux comme le procès de la toute dernière chance. En football, on aurait dit qu'on était dans les toutes dernières secondes d'un match de football et qu'il fallait à tout prix obtenir la victoire. Je dois, devant l'évidence, ça n'engage que moi, euh, me rendre à l'évidence donc euh, et me et à tirer la conclusion qu'effectivement les adversaires de Monsieur Sonko ont réussi l'objectif euh, de l'éliminer de de la présidentielle ou des présidentielles qui viennent. La présidentielle, c'est quand c'est un tour, les présidentielles, c'est quand c'est deux tours. En tout cas, il y a une compétition présidentielle qui s'annonce pour le 24 février. Apparemment, avec la décision qui vient d'être le Conseil constitutionnel, s'il la décision dès demain, a la possibilité voilà, d'apprécier par rapport à cela. Voilà, je, je, vous remercie vraiment, je ne pourrais pas en dire xoolal dara fi nga taxaw dafa sori mètre foog nga poussi poussi carrément.